waa baax na léegi yow léegi booy séeréer kan wala la wax nga jóge fi ngay gaare foofu kan la wax nga kal ah nee na de alaaji sukulu xaw ma suluxu xaw ma lan nee na ancien combattant la wax na ma sax matriculam waaye mënu ma koo jàpp ndax jàmm ma laay laa yow alaaji suluku trian boobu nga yow borom ndel bu rëy boobu noonu mbaa laaju la kaalis ak bugg laaj cinquante mille laaju la cinquante mille ahan kay waxtaan nañ ci loolu nee na semaine bu jot damay joxe ñaari junni wala ma jël suma fas bi yëpp ko feneen Nyari jun, ujun naik jadi. wa ala suluk lan moo ko dalam ndelam bu ngand dua buah kam du am karau comme nen e eh, boy kaf tuuba xoolal ma suma boutique bi ma dem enquête sum bori jaaraal kër suluk wax naa la moom dem ak sax la mbaa doo man dama war bouger de déedéet dum yàgg dum yàgg dama bugg jaaraale kër Bassoul ku laaj ko lan moo tax muy tere booy séeréer di gaare fii te nekkul imam nekkul chef de quartier nekkul dara assez compétent bu musul ray nit la mu nekk fii di bandi bandi maa ngi ñëw leen Pulo yow mii naroo gaaw a ñëw xam nga père Suluxu moom yéen a yam du la may dara. wax nga dégg du may dara waaye man tamit du ko may dara. boppam bu rëy boobu di mel ni carte Afrique <laughs> xoolal mu boutique bi rek yow jàpp ci maa ngi ñëw leen du mu na nga gaaw de ak sa yeelu sew yooyu sa yeelu nijaay i pulo konan sa yeelu nijaay yow ya, alaaj sunu lan mo tax mu wax la nga ñëw suma boutique ñu waxtaan boobu tey gisuma la nga toog fii sa bopp bu ñaaw bi eh pulo mon ami le grand boutiquier eh tejal sa lamiñ la la wax bul ma catu mu naan la pili garab boutique yee di bul ma catu sa gémmiñ bu bon wi tontu ma lu ma la laaj naam na mais pour la yow lan la doo wax ndànk da ngay ñëw sama buntu kër di ma yuuxu maa tax yuuxu la sa bopp ngand bi kool ko muy mel carte afrique madagascar si wet yow pulo yow nag mag bu nga li ma yoreel bor moo nga ñëw sama buntu kër di ma yuuxu bor bi moo nga bëgg maa yab xaaral suba ma ñëw fay la sa xaalis nga xam ne man maa la gën a histoire man je suis un ancien combattant mu naan ay combattant 14 10 hé man bor indi wu ma fi di dama ne la nga bàyyi booy séeréer mu liggéey il est digne il est un fils séeréer il travaille mu ngi toll pour fas yi bàyyi ko mu liggéey. mais Pulo yow loolu lu si sa yoon booy séeréer gaare wul sa côté boutique de suñu koñ la gaare. seen koñ la gaare waaye waroo koo laaj kaalis doo chef de quartier doo monsieur de maire robinet sax yoroo ko ci koñ mi ngi encaisse tirian bon. Pulo yow wéroo de man je vais bientôt être le maire ñu may woowee monsieur le maire El Hadj Suluxu. kon mu naan ay monsieur le maire El Hadj Suluxu le maire El Hadj Suluxu wax ji jeex na de na jeex sinon ma ci faay la léegi. eh gasaani jeexul jeexul. Pulo soo amee fit topp ma topp ma ñaay laa wax mag yow kese ñu raag ba naaw kenn du ñu àttee. ñu dem yàgg tere ne pour yow dama laa ragal jiitul wala fekk ma ñaay sax.